lan moo tax nga jékki-jékki démissionné ci parti bi parce que bu ñu jàppee boobaak léegi war na jege 3 à 4 mois lan moo indi nga génn ci PDS. waaw euh, Pape di ma may tuuti xam naa lu mu lay wax <coughs> dina la bett tuuti euh, dama jàpp ni man boo nekkee fenn. Mhm. Euh, nga dund ak ay nit. lu naqar nga dund ak kañ tam lu baax ak lu mhm. neex. Mhm. boo ci génnee war nga mën a am un peu de décence toog di expliquer ci média yi problème yoo xam ne c'était à l'interne. waaw parce que da nga ci dul am argument da nga ci dul nekk à l'aise. si si bëgg dama bëgg. dama bëgg mhm. ci mhm. doxalin politique. waaw boo nekkee fenn ba génn. waaw waxuñu nga wax ci lu bon. taxaw mais euh, commencé wax problème interne yi. jéem a loolu loolu man man man. mais est-ce que xam la loolu. Ah, non non mais la loolu. ma. ma man sama valeur dama bëgg. ci li ma lay wax ni ci valeur la bokk. non si valeur xam nga pourquoi mu bokk ci valeur. ci transparence la bokk. cest à dafa am ay nit yoo xam ne dañu bokk ak yow parti bi. Mhm. am ñoo xam ne ay sympathisants parti bi lañu. am ñoo xam ni sa génn ci parti bi neex na leen. Mhm. am ñoo xam sa génn ci parti bi neexu leen. kon man pour man c'est très important pour nga wax ni lii moo tax nga génn ci parti bi uniquement pour l'opinion ñu xam loolu c'est important. mais Pape. ñaata nit nga gis ñaata nit non non non loolu moom loolu moom loolu moom la waaw déglu ma dafa nekk yoon pour ko nit ñi waaw léegi déglu ma ok xam nga il est clair que sama génn PDS am na pàcc boo xam ne ay problème interne sama génn nag c'est pas exclusivement dama am ay problème interne PDS moo tax ma génn loolu tam dama bëgg mu leer dafa am ay compilation de faits ay compilation de motifs yoo xam ne ñoo tax ma génn PDS si loo xam ne nag problème interne la PDS da may may rek. waaw maa lay déglu man kay dama lay déglu. da may may rek. ah en tant que koo xam ne nekkoon naa fa. Mm-hmm. non mu may rek mu neex. dama lay mu neex génn ma wax ak sénégalais yi mu naqari du fii laay ñëw toog di ko wax waaye jàpp naa ne bu bu mu amee ay questions yoo xam ne intéressé na ñu may àndal. intéressé ñoo xam ne ñoom laa bokkal mbir mi waxtaan naa ci ak ñoom ba bu may jël décision ma jël décision donc loolu jeex na mbir mi bu may génn PDS dama génn si yar ak teggin ñoom ñu may ma respect ba dëggoo benn instance taxaw wax man ma may leen respect tamit non non non non man ma may leen respect boobu dama bëgg nag tant que respect boobu mi ngi am suñu diggante man ak sama ancien parti vraiment na le prophète rek man maa jël sama décision maa jël sama engagement loolu am naa ci liberté d' accord alors Toussaint lan ngay wax ci ñi jàpp ni yow